freestyle bi ñu nekk di ko gérer dossier wu Covid bi boo ko boolee ak lañ waxoon ci dund bi ceeb bi ak meew mi ak suukar si ne dañ ko fexe ba askan bi jot ci nañ ko doxalee nga xam ne dafa mel ni ña ànd ak ñoom kese ci jot wala ña ca war a jot buñ ci waree jot kilo liibar la ñuy jot wala genn wàll liibar ña nga xam ne commandé nañ lañ commandé nañ foog ne la état commandé ak li nit ñi gis utee na tâtonnement boobu nekk ci dem na ba nga xam ne sénégalais yi sax dañu commencé bàyyi sénégalais yi dañ commencé sax di relâché mel ni feebar bi amu fi wala leneen dolli ci nag jamono ji nga xam ne sénégalais yi seen xel mi ak seen fit yëpp dem na ndax feebar bi nan lañuy ñuy def ba mucc ci ñoom ñu nee di xool di wax ay waxu suuf da ngeen suñu suuf sii ci littoral bi gis ngeen suuf si boo demee ci littoral bi fii ci biir Dakar ña ngi koy caxat caxate waaye it demee ci biir réew mi li ñu doon wax gis nga ci boo demee fële ci Saloum dëkk bu mel ni ñu ngay wooyee boo demee tey jii fu mel ni euh, euh, Djilor dina gis ne maire ba dafa sax dañ ko accuser ne dafa modifier PV wu conseil municipal bi pour jox boppam 21 hectares boo duggee tuuti ci biir ñoom baato bi nga dem dëkk bu mel ni Bangaleer dañu fa dagg ay hectares hectare hectares foo xam ne jigéen ñi fa lañ doon dem di fa jëlee yoxos di fa jëlee xooru pañ di fa jëlee lañ dundee ñu jël ko jox ko aussi benn tubaab moom mu jël ko collecté ko ñoom amatuñ fu ñu demee jëlatee seen si dana woon dafay da nga leen defal hôpital defu ca dara dana leen defal boo demee kawoon ca Kaolack waxuma sax na ndox may sañ rek bi sànni ci géej gi xale ya doon foye waaye caxat-caxat nañ ko boo demee tuuti côté Salin suuf àll bi nga xam ne moom la moo daan sowe ba nga xam ne xorom si du dugg ci suuf si nit ñi mën caa bay ña ngi koy caxat-caxatee di ko jox ay Salin di ko séddoo boo demee booru Njaafat boo demee fële ci noor bi côté Ronk wala nga dem Njiit pareil Dakar sax liñ fi gis ci problème littoral bi ce n'est que la partie visible de moo feeñ rek waaye boo demee ci gox-goxaat yi maire yi ñu ngi lëkkaloo ak préfecture yi commune administration territoriale bi di caxat-caxatee suuf yi ak complicité yenn magistrature yi ak complicité wu ñenn ci waa impôt et domaine yi ña ngay caxat-caxatee suuf si ci jamono jooju nga xam ne sénégalais yi ña nga tiit di wool di xool feebar bi nañ ciy muccee ña ngay dem di xool nan la ñuy fexee ba buñ falee nit ñoom comme ça bu ñu fayee Aminata Tall bu ñu falee Aminata Tall conseil économique social environnemental ba fa jugee nan la ñuy fexe ba jox ko mu am lu mu téye loolu la ñuy woowee honoria jamono jooju ñoom bi sénégalais jaaxle ci loolu la ñu nekk waxuma nag yeneen dossiers yi comme bi ñu wax fii ak ile bi da ngeen débb waa surnaalu Madiambal bi nee nañu danañu ko arrêté dinañu arrêté contrat bi waaye gis nga texte bi nee na leen nañuy góorloo ni ñu góorgóorloo ni ñu yàkkamtee ni ñu caxat-caxatee ba dagg yenn contrat yi ak ci Covid bi ñu ci ñu njëkkalante ne ñoom dañu intérêt sénégalais rek a leen ñor ay waaye bu ñu ko góorgóorlu woon ci dossier yu mel ni terre junni milliards lañ ci def saxaar saa ngi nii dawut yëngatuwut ma ngay poussière di yàqu te nit amuñu lu ñu lekk saxaar gaa ngi fii taxaw terre bi ñu nee nañ ni ñuy góorgóorloo ci yenn yi nga ne ay sénégalais rek ci nekk ak sénégalais ni ñu ko seq gis ni ñu si ci njàkkamtee yooyu bu ñu ko góorgóorlu woon ci dossiers yu mel ni Petro-Tim nga xam ne suñu pétrole la suñu gaz la buñ ci gor góorgóorlu won ci dossier yi nga xam ne contrat néolais yi nga xamné ñu koy signé tuba bi toujours ñu koy jàmbat fi buñ ci gor góorgóorlu won ni kon sénégalais dañ gëm ne ñi askan wi mo leen taxa juk waye gis nañ ni nekkuñ ci environnement bi ñu koy caxat-caxatee lool nak bu amé ba nga xamné Sénégal tollu na fofu lan mo ci responsabilité sénégalais yi mar ne nañu delloo bu ci boy boy ga buñu ñu leen bàyyee suñu bop nañu ar suñu bop ku nekk na nga fexe ba yow nga nekk sa responsable lu bopp ba nga dog buum bi nga xam ne mooy indi wàllante bi feebar bi am na ay nit a ngi ciy dee suñuy mbokk a ngi ciy dee nañu fexe ba dakkal ko ku nekk na nga jël sa geste barrière di takk sa masque di xool ni nga def ba mucc ci parce que nguur gii kat du moom mu ñu ciy muccal ndax gis nañ nu mu nekkee di ko caxat caxatee ak ci nga xam ne ci li doon neex rek la ñu nekk. Macky Sall toogoon na fi jamono réew mi amul xaalis xamul fu muy jaar pour mën a dem lebi.

Ni pauvre trop mu jox leen dund fayal leen facture ñi nekk ci middle classe bi nag ñoom fayalu leen facture joxu leen dund defalu leen dara coût de coût de la vie bi gëna cher te sen seen poste tollu noonee mu ray secteur informel bi assassiner le secteur informel liquider l'économie du Sénégal plomber l'économie du Sénégal loolu la Macky Sall def donc à mi-chemin jot na kon ñun ñi nga xam dañu engagé suñu engagement bop te kenn fayuñu te kenn digaluñu ko suñu engagement bopp dong la ñu taxaw nañ ne kat war nañoo def taxaw seetlu parce que bu ñu xoolee ci biir loolee Macky woote na état d'urgence sénégalais bi nangul ko ko ñu woteel ko ab loi ci assemblée nationale pour lan jox ko lenge yëpp muy buur di bummi di sàkku di def ak def ak nangam li ci am mooy lan faalewul feebar bi mooy ay tappale la ci indi akum càcc